waaw donte su fekkee mënuñ koo wax ba maase ci suñ programme bi waaye. Mhm. ñu mosal la ci. Mhm. Eh, da nga gis ne ci góor. Mhm. dañ naan la doom day doon doomi doom day doon. ci góor. waaye ci jigéen doom dana doon waaye doomi doom ba du doon doomi doom bu jigéen du doon. doom bu jigéen dana doon baayam. waaw waaye doomam ya. duñ doon lu tax. lu sew la soxna Aida. Euh, arab dafa wax ne banuuna banu abnaina wa banaatuna banuhunna abnaau rijaalil abaidi suñ doom yi ñooy suñ doom doomi doom yu góor yi ñooy suñ doom waaye suñ doomi doom yu jigéen yi duuñ suñ doom doomi ah, ñeneen lañ ñu jël ki ci laaj bi salaamaaleykum waaleykum ah, ekatil kàddu gi tuuti baaba allo Wessa ñaama ngeen am. jaam alhamdulilah. maa ngi kontaan ci programme bi. jërëjëf ci yàlla kontaan. parce que dafa am benn affaire bu ma doon laajte. waa comme ne da nga am si sa diine. Mm-hmm. waa dem si beneen diine. Mm-hmm. waaye te nekkul ne dafa jékki-jékki rek dem foofu dafa am maanaam comme kum togg foofu noonu daal lu demee ni comme affaire yi far yi nii ak yooyu. affaire yi. ah dafa génn si diineem dem toppa beneen góor ci beneen diine. waaw. waaw léegi may laajte nag kooku su nekkee foofu ba dégg ne yaayam génn na àdduna. waaw. ndax dina mun a ñëw pour ah, doona ci alal yaayam. te bokkuñ diina. non mu ngi diine waaye dafa génne ci diine den ñu ah, beneen si beneen diine. waaw mooy bokku la yaayam diina. waaw. waaw xam naa laa ko mën a téye daal xam nga. waaw waaw loolu la. ok. waaw soxna Aida xam nga. moom daanaka defe naa tontu na boppam sax. parce que sharia amul soxla ci. lu tax nga dem ci beneen diine ba lu tax nga bokk ci amu ci soxla. Hmm. lim bëgg a am lim bëgg a wax rek mooy ndax. yaa ngi ca diine hmm. léegi nag loolu danay am ci judduwaale danay amit ci toxu murtat masalan tey eh, jigéen joo xam ne dafa gis keneen koo xam ne bokkut ak moom diine. ngir bëggante mu topp ko ba dem dugg ca diinaab kooka mhm. xalaat foofa la bokk léegi mhm. léegi dootul mën a doon yaayam mi nga xam ne mhm. bokkut ak moom diina ku ñu bokkut dina wax nga ko fi daal duñ mën a doonante salaamaaleykum boobu leer na bisimilah asalaamaaleykum ah, allo allo waaw bisimilah bisimilah. soxna si bisimilah. yaa ngi ci daara ji waaw bisimilah. yaa ngi ci daara ji allo. allo. waaw ñu laa dégg. waaw ñu ngi laa dégg. <laughs> bisimilah. laa dégg. allo. ñu ni moom mënul ñoo dégg de waaye ñu ngi koo dégg waaw. Aïcha. ma ne waaw. ma ne dama bëgg a bokk ci programme bi. bisimilah Aïcha. ma man suma papa depuis bu ma gaañoo ba léegi. waaw. Mhm. léegi suma mag bu góor bi. Mhm. ñu ñoo bokk mhm. moom da da fay def moom mu mu mu mu luwee néeg su su suluwee moom moom mu jël ko ni ni moom kese mm-hmm. léegi ni moom laay laajte ndax loolu moom ndax sariya lan la ci wax tooñ yu metti ngeen ma ko man maa ngi fii Banjul waaye suma mag bi moom moom mu ngi Dakar njuba di rek mm-hmm. waaw moo tax may moom dafay feeku nii kii moom ba pare di ko lekk comme muy seen mag waaw mm. soxna Ayda waxoon naa ci waa dégg alaaji suma defi ba sama papa gaañoo ba léegi moom moom mu ngi luwe moom mu ngi lekk rek safara de sax man ma di leen seetaan waaw moo tax léegi ma ne xaaral ma laajte loolu fan la kër gi ne fan la fan gi ne ndax moo waxee ñu ne ñun jigéen la ñun waruñu cee laajte dara fan la kër gi ne Gambie la ndax Sénégal kër gi ñun amuñ ci wàll ndax ñun ay laxkat la ñun joolaa la ma ne fan la kër gi ne Gambie ndax Sénégal Dakar la nekk ah. Padoua Padoua Dakar mm. soxna Ayda bu doon fii day mu neex ni kon nga àtte ko de Budon fi fii non ah, waaw mu jot akam wa deglu alaaj usman wa soxna Aida façon ngi kees bi moo tax bunt bi nga ubbi ko mm-hmm. tooñaa ngay daño bare torop ndeysaan koku mu ngi lek safara te yegut ko mom mm. la alquran di wax ne kep koy lek alali jirim mm. na xamne safara lay lek mm-hmm. gi nga su fekkon fi la ci Gambia wa soxna si dang koy digal ne na dem koot wa su demee kaadi koot mm-hmm. ñu samone magam forcé ñu miiras kër googa waaw waaye xam nga ne lii tooñ la yow sax sa sa sa sista mhm. nga waroon a jël xaalis di ko may mhm. lam waroon a doon yow nga di ko fayee ko di lekk ñaaw na te loolu dafa bare léegi mhm. day gis ñu naan damay dañuy administre kër gi ñu ne këri famille la buñ ko jaay ay caaxaan rek yàlla moo ëpp yërmande ku ne léegoo léeg nga dégg ñu naan وحقلة إذا نون داو سوين نعم يلا بموي راي واجا كمطون بموي باي حقلة تتره بموي دير لسيد على الجي كانوا كتير نين لجوك سوال نول موينجوب Thank you. son sonn du ma bàyyi yaa ma teg place su bàyyi ba noppi ma soog ma jàng di weeru law xaar bi wow sama sutura ci biti I promise I gonna make you my wife in a minute moytul ma ñii mën nañoo yàq sa xel ci benn minute lu may ñaan mooy rek say waajur jéggal ma luy am am na ba noppi may ma nekk tuuti chance bu ma pare rek ma takk la def la sama soxna I'm a ginger like a queen, please Fuck everybody dance Sing a dick to the door y'all, the yaay Ba noppi jural nga ma turan dooru y'all, That's why when I look at you Sama xol fees rek ma daal di kaay Cause every day and night They make you cry cause of me Cause of me I know what you're feeling Yeah